asalaamaaleykum askan bu seetaan QTV jamono ji ak yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo di ànd ak ñun si Q radio muy 103 point 3 kaddu gi bay ko fi si biir tundi Kereva Avenue nekk fii si biir réew yi Gambia ñu fas yéene tënk leen xibaar yi alxames ji ngeen di si ànd ak. Birame S Diop lu gën a fës nag tey si bopp xibaar yi mooy gannaaw bi nga xam ne si bopp am na am ndaje bu nga xam ne amoon na si makkaane njiité réew mu nekk fële si biir State House te nañu ko woote woon nag moo nekk muy Constitutional Review Commission muy kuréel bi nga xam ne si boppam réew mi santoon ne leen gi ñu war a mun a bindal loi bu nga xam ne moo war a mun a jël place 1997 constitution demoon neen talaata ba passé nii foofu noonu si biir muy makkaane njiité réew mi. gannaaw bu loolu weesoo ba léegi muy am na feebar bu ngeen a xamee si hypertension maanaam mu nekk muy feebari deret bu yéeg ak diabetes maanaam mu nekk feebari suukar ñu ne ji ñaari feebar yi nekk na feebar yi nga xam ne du lee wàlle waanaka am na doole bu baax a baax fii si biir réew yi Gambia bi loo taxaw si boppam amoon gëstu bu nga xam ne defoon nañ ko pour li nga xam ne moom la moo baaxoo di sabab si biir façon feebar gannaaw bu loo weesoo ba léegi ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey si London School of Hygiene and Tropical Medicine ñoom si boppam ñu amoon ak lëkkaloo bu ñu def ak MRC muy Medical Research Council pour ñu gis ne ni ñu jëm waxtaane waxtaanee bu baax a baax muy lépp lu nga xam ne moo nekk aju si wàllum préparé bu ñu war a mun a préparé pour ñu gis ne dina war mun a màggal lu gën a xamee si Planetary Health Conference. gannaaw bu loolu weesu ba léegi muy benn mbootaay bi ngeen a xamee si Beka Ñang maanaam mu nekk si kàllaama mu Mandinka muy ñëpp a dal di am loolu nekk na ab mbootaay bi nga xam ne seen mbébét mooy ñu gis ne dina war a nekk di bu baax a baax muy àq ak yelleefi doomi aadama ñoo amoon ak benn fan waxtaan bu ñu defoon pour jéem a xamal nit ñi lan moo nekk muy FGM maanaam mu nekk jigéen nga xam ne ñoom la ñoo baaxoon yóbbu si fànn muy néegi sëy wala boog sax mu nekk si néegi góor ñu xamee ko si lël kon askan bi yii nii ak yeneen xibaar incha allahu rabi si lu bañ a yàgg ñu indi leen si ay yaatal gannaaw bu ñu jëkkoo yéen si bopp xibaar yi ñu fas indi si ab yaatal te nag tey jii fu ñu koy commencé mooy talaata bi nii passé gannaaw bi nga xam ne am na ab ndaje bi nga xam ne defoon nañ ko te ñu ko waraloon moo nekk constitutional review commission maanaam mu nekk kuréel bi nga xam ne nag mu njiiti réew mi di his excellence di président Adama Barrow nag waxoon na ne su demee bi war a nekk njiiti réew yi Gambia bokk na si lu ñu ko def mooy mu gis ne dafa jëm a sos ab kuréel bi war a mun a liggéeyaat muy luwaa bu war a mun a jël placé muy 1997 constitution muy luwaa bu nga xam ne si jamono nguur yaay jame moo fi jotoon a nekk si boobu jamono ñoom na gannaaw bi nga xam si bopp nag def ne seen liggéey bi nga xam ne que bind nañ nag ab lu ñu gën a xamee si draft constitution maanaam mu nekk luwaa bu nga xam ne si bopp nag bind nañ ko te mu nekk luwaa bu nga xam askan bi kenn ku nekk yëkkati nag kàddu bi nag bind bu baax a baax li nga xam ne moo nekk mbibitam talaata bi ne passé yëkkati woon ne seen waxtaan mu amoon nag mu ñoom ñooñu ak mu njiiti réew mi si màkkaana bu nekk foof noonu si biir Banjul gannaaw bu loolu amee naka si kër bi kenn ku nekk si ñoom naka demoon na pour jël nag toogu bu nga xam ne moom la moo war a toog pour jéem a xaarandi ku nga xam ne moo nekk njiiti réew mi si kër bés naka ñu bëri jël nañ fa seen kàddu rawatina sax muy ku nga xam ne moo nekk justice Thierno di Souleymane Diallo moom nga xam ne moo nekk njiit bi maanaam moo nekk chairman bu constitutional review commission moom naka wane na ni lii nekk na si seen liggéey gannaaw bu nga xam si boppam ñoom seen mujjanteelu liggéey bu nga jamono ji nii ko doon def si fànn mi di ko war a mën ko bindaat àgg na si ndar képp bu nga xam ne si boppam lañ ko war a mun a dal ko jeexalee mu ne lu ko waroon nag si gannaaw mooy ñoom ñooñu nag jëloon neen seen wóor bu nga xam ne wóoroon nañ ko fii si biir réew yi Gambia dem na ko askan bi kenn ku nekk mu seet lan la bugg a ñu war ko mun a dugal si luwaay réew mi lan moo nekk mbir nga xam ne que neexut ko ñu war ko mun a génne si luwaay mu ne gannaaw loolu amee nag si boppam ñu demaat si ñaareelu wóor bu nga xam ne amaatoon na ba war koo mun a yóbbu si njiiti réew mi war a waxtaan ak moom jëm ko war a mun a àggee li nga xam ne mooy que bii façon taxawaay mu ne kon nañu mu si boppam nag rafetlu nañu bu baax mbaa mu jamono ji nii jéego bu nga xam ne si boppam defaale nañ ko pour gis ne luwaa bi ñu bind ko si ni mu gën a nekk di jékkee gannaaw bi nga xam si boppam am na nag waxtaan bu yàgg si diggante ñoom ñooñu ak ku nga xam ne moo nekk njiite réew mi ku nga xam ne moo nekk muy Mr Ibrahima Silla nekk jëriñ mu amee wàllum jokkalante fii si biir réew yi Gambia mu ne moom nag si boppam nag bokkoon na si ñi nga xam ne nag kër bis ne ko toogoon neen pour jéem a nekk di gëstuwaat bu baax a baax ak ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ay moromi ministre pour jéem a seetaat bu baax baax muy luwaay par benn benn lan moo nekk luwaa bu nga xam ne noonu la dal di ëmb ak tam nuñ ko war a mën a nekk di ko waxtaanee mu ne ñoom si boppam nag def ne seen liggéey si boobu fànn te kon nag si boppa nag gis ne nag am na lu bëri lu nga xam ne mun ne koo dal di ko dëggal si yooyu façon ngi fi mbir si kàddu moom ku nga xam ne moo nekk muy Aboubacar Tambadou nekk juróom bu nga xam ne moo amee wàllum àtte fii si biir réewi Gambia te moom ba léegi moo nekk attorney général moom nag wane na ni meeting bi nekk ni meeting bi nga xam ne jamono yi nekk def nañ ko pour gën a nekk di waat muy waxtaan ak dëggal ak gën a wane bu baax a baax muy ponk li nga xam ne su bopp nag seen liggéey mooy CRC di Constitutional Review Commission moo ko daloon di waral mu ne nag lii nag moo nekk ana bu nga xam ne su bopp nag gis ne ne si weeru novembre bii nii passé muy si daaw amoon na nag ab jébbal bu nga xam ne si boppam jébbaloon nañ ko ku nga xam ne moo nekk njiite réew mi di président Adama Barrow ngir mu mun na seet ba xam ni ñu war a mun a déglee pour loi bi war a mun a dem si nu ma war a mun a nekk di rafetee mu ne kon nag li nag wanewaat na ne njiite réew mi nag préparé na saa su nekk pour war mun a toog. pour jëm a waxtaan ak ñoom si lépp li nga xam ne moo nekk yi façon mbir ndekte lii bokk na si bunt yi nga xam ne askani Gambia kenn ku nekk si ñu ñi nag yëkkati woon a kàddum jëmale ko si luwaay yi nga xam ne ñoom leen bëgg a mu war a mun a nekk di aju si fànn muy luwaay réewi Gambia ne kon nag lii nag nekk na maqaam ak taxawaay bu nga xam ne Gambia luwaam dafaa nekk luwaa bu nga xam ne askani réew mi ñoo ko dali ko xalaat ñoo ko dali ko bindal ñoom seen i bopp gannaaw bu loolu weesu nag si kàddu moom mu nga xam ne moo ko Thierno Souleymane Diallo nekk chairman bu CRC moom nag waxaat na ne mu ne ñoom nag préparé na mu baax a baax mu gannaaw bu nga xam ne ñu bëri yëkkati woon ne seen i kàddu ñu bëri yëkkati waatoon nañ bu baax a baax seen i gis-gis jéem a wane bu baax lépp lu nga xam ne si boppam moo xaw a si wàllum luwaa bu nga xam ne jamono jii nii bindoon nañ ko si gannaaw. mu nekkoon nañ nag ñoom si bopp nag jël li ñuy jël bu baax a baax mu yooyu façon yi kàddu nag jébal nañ ko jamono ji ku nga xam ne moo nekk njiite réew mi pour moom nag mu war a mun a seet ba xam nag jamono ji fu ma war a mun a nekk di àggee pour ñu war a mun a gis nag luwaa bi mooy war a mun a jël luwaa bu nga xam ne moo fi nekkoon muy si 1997 constitution bi nga xam ne si jamono nguuru Yaaya Jammeh moo fi nekkoon si diggante ñaar fukki at ak ñaar gannaaw loolu weesoo ba léegi si xibaar yi muy hypertension maanaam mu nekk feebari deret bi yéeg diabétis mu nekk feebari suukaar ñu ñaari feebar yu nag dëgg la du lee wàlle waaye nag nekk na feebar nga xam ne jamono ji nii am na doole bu baax a baax fii si biir réewi Gambia te nag nekk na feebar nga xam si boppam dafa baaxoo di gis ne ñu bëri nañ fa lay am nag yeneen façon feebar yu baaxoo di juddoo si yarami doomi aadama te fekk nag sabab bi mu ngi commencé si hypertension mu nekk feebari deret bi yéeg diabétis mu nekk feebari suukaar yooyu feebar nag bokk na si muy ñi nga xam ne si bopp nag seen wàllum deret seen fu ma war a nekk di jaar seen bi yaram dafay baaxoo di yàqu bi nag du lee war a mun a am naka fu ma war a nekk di jaar bi loolu tax na bi naka néewi wala boog sax mu am yeneen jafe yi nga xam ne mun nañ ko amee si yooyu façon yi far na ñu ñaareel bi tam muy heart attack maanaam mu nekk feebar bi nga xam ne léegoo-léegi sax xol bi la moo dal mbëkk te su ko mbëkkee si bopp nag mun na moo tax bi nekki mu jaaree fa ba ñàkk bakkanam ñu ñetteel bi nag moo nekk ni kidney failure maanaam mu nekk si ab cëri doomi aadama maanaam fu nga xam ne léegoo léegi mooy baaxoo di segg nag deret di segg bu baax a baax muy ndox bi nga xam ne moo nekk si yarami doomi aadama pour nit di ko war a mun a dem ko war a nekk di ko saw ñu ne kon ne loolu si boppam nekk na feebar nga xam ne si bopp nekk seen sababt mun na moo dal bee ko si hypertension muy feebar yi deret bu yéeg ak li nga xam ne moo nekk diabetics mu nekk feebari yi si kare bi si boppam ku nga xam ne moo nekk tumaani kora moom nga xam ne si bopp nag nekk na ab doctor bi nga xam si bopp nag xam màcc na lool si biir façon fànn na mu ne suñu bàyyi xel bu baax a baax si atum 2018 maanaam mu nekk ñaari at si gannaaw amoon na nag a benn kayit bi si boppam yëkkati woon ne ko muy International Journal of Epidemiology maanaam mu nekk gëstu nga si boppam wane ne ne su nekkee téeméeri nag ab kilifa la daanaka fanweeri ak ñaari yëpp ñu faat seen bakkan fii si biir réew mi muy feebar bi nga xam ne moo nekk deret bu yéeg muy hypertension mu ne kon nag baax na lool pour nit ñi ñu war a mun a seetaan ñu war a mun a nekk yëkkati waate ab jéego pour ñu gis ne dañoo war a mun a aar nit si seen wàllum gis-gis pour ñu gis nag wàllum dund bu ñoo nekk di dundee ak ñàkk am bu baax ba muy ab ñàkk mu ne loolu nekk na fànn bi nga xam ne dina war a tax bi gën a mun a nekk bëri fii biir réew mi mu nag képp ku nga xam si boppam am nga nag mu wàllum feebar bi nga xam ne mooy ko feebar deret bi yéeg warugal la si yow nga war a mun a nekk jëfandikoo bu baax a baax muy ak digal ab yenn si kàddu yi nga xam ne si boppam docteur wax na la ko nga war ko mën a nekk ko wàññi nga seetam ne war a mën a yokk sa bunti muy wér-gu-yaram moom ba léegi di tumaane kora mu dali wane mu ne ko si bopp gestu jot na ñu a mun a seet lan moo war a mun a tax ba feebar di gën a nekk am doole fii si biir réew mi ñu war a a seet ba xam lan moo ko war mun a nekk ko wàññi ak ñoo war a mun a nekk yëkkati wante muy yeneen façon jikko yi nga xam ne dinañ ko war a mun a nekk di ko te mu ne lu mel noonu moo nekk di am si réew mi gën a xamee si South Africa mu ne kon nag baax na lool pour nit ñi tam ñu war a mun a gis ne looy war a mun a nekk di lekk laata nga dem tëri mbaa sa lekk yu nga xam ne su boppam du la gaaw a res mbaa sa lekk yu nga xam ne mun na laa yokk nag yeneen si fànn nga xam ne su si yaram di ko soxla loolu mu ne ki war na ko muutandi ko bu baax war nit nekk lorange la moo gën a nekk di bëre a baax si sa biir yaram mu ne dëgg la fànna muy wér gu yaram si boppa boppam nag daanaka nag dafa xaw a manqué bu baax a baax fii si biir réew yi Gambia waana mu ne bi li nag tax na pour nit ñi tam ñu war a mun a seen ñu war a mun a nekk di yëkkati waate bu baax a baax seen i gis-gis ñu gis ne dina war a mun a fagaru bala ñu war mun a dem di faju mu ne dëggal nag réewi Gambia ñàkk na garab ñàkk na yenn bagage nga xam ne si boppam ay jumtuwaay la pour nit ki war ko mun a nekk di ko fajoo rawatina sax mu ñu nga xam ne ñoo nekk docteur yi war a mun a nekk di faj muy askan bi moom nag ba léegi si kàddum di tumaane Kora mu ne mu ngi jéem a wane naka muy askani réewi Gambia war nañu def seen wargal bu baax a baax pour jéem a jël nag seen i di ko war a dépassé bunti wér-gu-yaram bi ndaxte mu ne su nekkee jël nga sa alal dépasse ko sa fànn muy wér yaram dina la war a mun a aar nga xam ne ëllëg si biir yeneen feebar yi nga xam ne du lee wàlle wala fekk na doom aadama mun na ko amal boppam nga war si wala mun a nekk di mu ci gannaaw ba loolu weesoo ba léegi muy ab benn mbootaay bi nga xam ne si boppam seen makkaan baa ngi nekk foo si biir bitim réew ñoom la gën a xamee si London School of Hygiene and Tropical Medicine ñoom ñi xam a xamee si MRC muy nekk foo na Fajara ànd si ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk seen yeneen naataango àllarba bi ne passé di démb amoon nañ ab ndaje bu ñu defoon ak taskati xibaar yi di jéem a wone la moo nekk taxawaay bu nga xam ne jamono yi def nañ ko pour ñu gis ne dinañ jéem a woote lu ñu gën a xamee si benn semaine ndaje si bunte muy wér-gu-yaram ñu ne ndaje nag dina war a mun a dajale muy borom xam si bunte wér gu ñu nekk si àdduna bi ñu nekk si gox goxaan ak tam ñu nga xam ne ñoo nekk fii si biir réewi Gambia ñu war a mun a nekk di waxtaan lan moo nekk ab loraange bu nga xam ne jaww ji mun na ko ak seen ñu gën ko xamee si climate change rawatina sax mu ñu seet ñoo war a mun a yëkkati yeneen façon yi buntu yi nga xam ne réew mi dinañ ko war a mun a nekk di nga xam ne seen wàllum aar askan bi dañ ko war a a nekk di def mu gën a mun a nekk di yaxandi pour buntu wér-gu-yaram gën a nekk di baawaan fii si biir réew mi ndax ñu ne nag moo tax ñoom ñii ñu woote na ñu gis naka incha allah muy ab semaine dina war a mun a am yooyu façon yi ndaje si kàddu moom ku nga xam ne moom moo nekk muy njibi di jàngale foofu noonu si boobu jàngee kay London School of Hygiene and Tropical Medicine moom na gën a xamee si professeur mu Antonio moom wane na ni jamono ji nag ñoom préparé bu baax a baax pour jéem a waajal ndaje bii nga xam ne moo war a am fii nii biir réewi Gambia mu war a mun a nekk si diggante ak benn semaine mu ne loolu nag dina war a am nag yokkute bu baax a baax si lépp li nga xam ne mooy war a mun a tax pour bunti wér-gu-yaram gën a mun a nekk di baawaan si biir Afrique sowu jant mu gën a mun a nekk di saxane pour nit ñi war ko mun a nekk di ko jëriñoo mu ne kon nag yaakaar na ne ndaje bi nii. dina war a mun a am njëriñ bu baax a baax muy képp ku nga xam nekk na fii si biir réew mi te fekk nga am sens war a mun a bokk si boobu façon ndaje si kàddu moom muy professeur muy si daad Yafa nekk head of agronomy si school of agriculture and environmental science moom bu nga xam ne ba léegi tam moo nekk muy njiit bi si University of the Gambia naka seen boobu béréb yi nga xam ne amee wàlla muy jàngat bi moom nag wane na ni ñoom nag si bopp nag préparé neen saa yu nekk pour ñu gis naka ndaje bi nii su demee ba di war a mun a am màkkaan boobu nga xam ne moo nekk UTJ muy bërëbi jàngekaay bi gën a màgg fii si biir réewi Gambia mu nekk jàngekaay bi nga a mën a dugal loxo ndég bokk na yi nga xam ne moom lañ leen gën a nekk di xamee mu ne moom nag si bopp nag mu ngi jëm a wane ne préparé mu baax a nga xam ne mooy que biir ndaje bi nga moo war a am si lu bañ a yàgg gannaaw bu la weesoo bi léegi si kàddu moom ku nga xam ne moo nekk assistant professeur bu environmental and nutritional policy foofu na si boobu béréb moom ne gën a si docteur muy Pauline muy Selfbeck moom nag wane na ni ndaje bi nag nekk na ndaje bu nga xam ne que ñoo neen pour jëma wécci wante xalaat pour képp ku nga si boppam nekk na borom xam yaa xam nga béy ko bitim réew mbaa sa nga nekk fii si biir réew yi Gambia ñu war a a gis kenn ku nekk ni moo war a nekk jëriñe moromam si lépp lu nga xam ne moo nekk ay si yooyu façon fànn mu ne ñoom nag dinañ pour gis ne dinañ sukkandiku nag yëkkati wante xam-xam di ko war a mun a wisaare si fanamu infectious diseases maanaam muy feebar yi nga xam ne mooy baaxoo di wàlle air pollution muy yàqu-yàqu muy ngelaw li ak food security maanaam mu nekk dund bu nga xam ne faaw war a gën a nekk di sax gën a nekk di bawan pour nit ñi war ko mun a nekk di ko jëriñoo nekk na si buntu yi nga xam ne préparé nañ pour gis ne dañ koy gën a mën a nekk di ko def mu gën a nekk di yaxandi ba léegi rek si xibaar yi muy mbootaay bi ngeen a xamee si Bekanyang organisation maanaam mu nekk mbootaay bi nga xam si kàllaama Mandinka moo mu nekk ñoom ñëpp a dal di em ñoom si boppam ñu amoon nag lëkkaloo bu ñu def ak ñoom si ay yeneen naataango ñu woote woon ak benn fan waxtaan pour jéem a xamal nit ñi lan moo nekk mbir bi nga xam ne moo nekk muy FIM maanaam mu nekk yóbbu jigéen lël wala boog sax mu yeneen fànn nga xam si boppam léegoo léegi dafa baaxoo di indi nag ñoom seen wàllum loraange si ab dëkkuwaay bu nga xam ne moo nekk combat is nag ñoom si boppam seen liggéey moo ñu gën a nekk di xeex muy àq ak yelleefi doomi aadama si kare bis nag ku nga xam ne moo nekk executive director bu Beka Ñang moom la gën a xamee si Famara Jawne moom nag wane na ni jël jigéen yóbbu ko lël nekk na fànn bu nga si boppam fànn bu ñaaw la ak fànn la bu nga si boppam nag am na loraange bu nga xam ne léegoo léegi mun na ko àggee muy xale ndaw yooyu noonu ñi nga xam ne yóbboo nañ leen leen si biir jamono bu nga xam ne ñu ngi nekkoon ay yeneen ndaw mu ne kon nag su boppam dëgg la nag ñu bëri ne ne aada la wala nekk na aada bu nga xam ne su boppam loraange bi moo ëpp muy li nga xam ne moom la fa nit ñi nekk di séntu mu ne nag am na nag loraange métti nga xam ne si boppam ab métti la jigéen ñi dañ ko la baaxoo di ko jànkuwanteel gannaaw nga léegoo léegi sax ñu bëri dem fa la ñàkk ab deret du bëri ba ñu bëri dem fa la baaxoo di jaare ba ñàkk fa ñoom seen wàllum bakkeen mu ne dëgg nag fii si biir réew bi Gambia jël jigéen nag yóbbu ko lël si boppam nekk na ab aada si boppam ñu bëri naka gëm ne ne seen aada ay maam la wante si bopp nag baax na lool pour nit ñi war a mun a seet ñu ko war mun a nekk di ko muuti ne ko ndekte si bopp nag gis ne ne loraange bi nag bëri te nag am nañu bëri ñu nga si bopp nag indi na leen yooyu façon yi si kare bis ne ñu bëri jël ne fa seen i kàddu yëkkati nag bu baax a baax seen ñàkk a ànd ak tam muy jël jigéen di ko war a yóbbu si wàllum néegi góor ñu xamee ko si lël ñu loolu si boppam nag nekk na aadam nga si boppa ñu bëri nag seen ay maam da nga def waaye nag baax na loolu ñu war a mën a gis ni wér-gu-yaram nekk na bunt yi nga xam ne war ne ko war a mën a sàmm si képp ku nga xam ne nekk na jigéen fii si biir réewi Gambia ba léegi rek si xibaar yi gannaaw bi nga xam ne tubaab bi nag dañoo baaxoo di agsi fii si biir réewi Gambia te ñëwee fii si biir réewi Gambia bokk na si béréb bi nga xam ne moom la ñu gën a nekk di dem mooy si béréb bi nga xam ne si bopp nekk amul comme li nga xam ne si boppam si réew am na ko maanaam mu nekk yeneen rab yu nekk fii si biir réew mi moo tax ne mu am nag benn si bopp nag léegoo léegi nit ñi dem fale baaxoo dem pour war a gis ne di jëm a nekk di xool nag am tànn yi nga xam ne dañoo baaxoo dafa naaw su ñëwee ba naaw fa nag nekk dafa dal di sangu léegoo la nit ñi nag di leen jéem a jox nag lekk yu nga xam ne moom la ñu war a nekk lekk mu nekk ay yenn façon yi ndawal moo tan ne si bopp nag si kër ak suba si nag ñu ne lu moo tax si bopp nag muy bés bu nekk nag si suba si fukki waxtu ak benn su tegale fanweeri nit yu bëri ñoo leen baaxoo di dem nag jël ko pour a jox muy ab tan yi nga xam ne ñoo nekk foofu na si benn béréb bu nekk si foofu na si boori Sénégal bi bi si kër bés nag si boppam nga xam ne moo nekk Cheikh Tidiane moom nga xam ne si boppam daf lay baaxoo di jël nag muy yooyu façon ko war a mën a yóbbu nag si boobu dëkkuwaay bi xam ne moom la ñoo baaxoo di sànni nag muy yooyu lekk pour nag muy tani war ko war a mun a nekk di ko dundee mun na ñoom nag léegoo léegi dañoo jëman nekk di ñëw te su ñëwee dinañ ji nag ay yenn façon muy li nga xam ne moo ko muy tere ganaar war ko war a mun a jox muy tan yi nga xam ne si bopp nag ñàkk ne ni ñoo lekk te ñoom nag si boppam miin ne ne foofu nekk na béréb bi nga xam ne dañ leen ñoo baaxoo dafa ñëw di jox lekk te tubaab itam dañ fale baaxoo di ñëw tam jéem a seet ñoo war a mun a nekk di nettaale yooyu façon yi mala ñu ne kon si boppam nag loolu nekk na fànn mooy su boppam ñu bëri nag foogoon ne ne nekk na lu boppam lu doy waar la wala ñu bëri nag dañoo baaxoo foo nag saa su nekk pour war a mun a gisal seen bopp te ni ñu ñoo baaxoo di dalee di nawee di war a nekk di sangoo si bërëb bu nga xam mooy ko foo si boobu dëkkuwaay bu ngeen a xamee si Sénégambia si kàddu moom ku nga xam ne moo nekk docteur Christine muy amaan moom nga xam ne si boppam nag moom daf lay baaxoo di gestu baax a baax muy fànn biologie mooy maanaam mu nekk wàllum rab yi foolee si réew mi gën a xamee si jamani moo na mu si bopp na daf lay baaxoo di am nag bu baax ba baax muy mbégte su nekk dem na ba di war a mun a xool di jàng nag muy rab yi seen jikko seen nekkin ak li nga xam ne moo ko di aju seen wàllum dundin wala mu ne jamono ji nag li nga xam ne moom na gis fii si biir réew yi Gambia nekk na lu nga xam ne si bopp musu koo gis fent nag si bopp nag jox na ko yaakaar ne Gambia am nañ may may bu nga xam si bopp nag mun nañ koo baaxoo di ko puugaroo si li nga xam ne moo koy aju si na muy tànn si kàddu moom mu nekk Michael Koch moom nga xam ne si bopp naka moo tam wane ne ni am na mbégte bu baax ba pour war a mun a jël naka mu yéene lekk nga xam ne si bopp naka tani dénk ko ko soxla di ko war a mun a jox nag mu tani ñu war ko mun a nekk di ko dundee mu ne moom nag si boppam nag nekk na si boppam yàgg na moo nekk di gestu mu yëpp façon fànn si diggante ñeent fukki at mu ne gëm na ne lépp lu nga xam si boppam moo war a nekk di aju si wàllum muy bànneex bu nit ki di war a mun a am pour soo war a mun a jox nag lekk ab mala mu ne moom na si bopp nag am na ko ndekk mu ne su demee ba di war a mun a jël lekk yi di ko war a jox tani am na lu bëri lu nga xam ne daf ko lay baaxoo di ko yëg ñu ne kon naka fii si biir réew yi nekk na rew bu nga xam ne si bopp naka jamono ñu bu nekk dañ dalee doyale fànn muy tan wala mu ne nag si boppam am na fànn yu bëri nga xam ne si boppam nit ñi suñ ko xamee nag si boppa am na solo dinañ ko war a mun a nekk di koy yaatal pour ñu gis naka muy tubaab bi ne moo war a mun a accès fii si am na tubaab bi nga si bopp nag wàllum tan ak wàllum garab ak wàllum muy picc yi nekk na fan nga xam ne daf leen a baaxoo bu baax a baax gannaaw bu njëkkoo yéen si xibaar yi réew mi ñu fas yéene ànd ak yéen si xibaar yi bitim réew te nag fu ñu tey jii mooy si réew mi ngeen a xamee ñu ne naka incha allah muy dimanche ne fukki fan ak juróom-ñetti si weeru janvier si atum 2020 bi nii mooy bés bi nga xam si boppam préparé nañ pour jëm a boole wante muy ñi nga xam ne ñoo daloon di génne muy ku nga xam ne moo ne ko Moomar Gaddafi nekkoon njiiti réewi Libya ak ñi nga xam ne jamono ñoo dal di amee mu doxal ni réew mi ñu war a mun a nekk benn war a mun a topp lu waxtaan ñoo war mun a gisee lan moo war a nekk di aju si wàllum jëm kanamu réewi Libya ak li nga xam ne la moo war a nekk di àndee moo tax mooy jaamane muy réew bi nga xam si boppam ñoo bokk di si ñi nga xam ne ñoo war a ñëw pour war a fekkee ndaje bi naka war a ne ne dina war a mun a def seen warugal bu baax a baax pour war a mun a si nekk mu ndaje bi mu nekk ndaje bi nga xam ne jàmm moo koy gën a mun a nekk ko lal loolu tax bi si kër bés nag si boppam ku nga xam ne moo nekk muy Antonio Guterres nekk United Nations seen bindikat bu mag bi moom nag wane na ne ndaje bi nekk na ndaje mu si boppam dina war a mun a boole ku nga xam ne moo nekk prime ministre di Fayed muy Sarraj moom nga xam ne si bopp nag moo nekk seen prime ministre muy réew bi ngeen xamee si Libya ak ne si bopp ñoo nekk yeneen njiit ñu war a mun a gis war a a defee pour jàmm di gën a mun a nekk di sax si réew boobu ne muy moo ko daloon di jiite. ñu ne suñu fàttale ko si gannaaw mu lundi bi ne passé gannaaw bu nga xam ne ku nga xam ne moo nekk Haftar moom nga xam ne si boppam moo nekkoon seen xalifa général bi mu ngi jékkoon si réew mi ngeen a xamee si Russia capital bi ngeen a xamee si Moscou waroon na am naka muy ndaje bi nga si boppa moom la waroon na bind pour mu war a mun a nangu ne ku nga xam ne moo nekk saraaj dina war a mun a am naka nangutoo ak dëggal bu nga xam ne moo war a nekk ñoomi neen seeni diggante gannaaw bu loolu weesoo ba léegi muy beefra woo maanaam mu nekk ab guerre bi nga xam ne si boppam amoon na lu war a toll si fanweeri weer bi nga xam ne si boppam moom moo daloon ni am te na loolu taxoon na si boppam lu war a toll si benn million dem ba si ñaari million doomi aadama ñàkkoon fa ñoom seen bakken te li yëpp nga daloon ne am gannaaw bu nga xam si bopp nag wane woon ne ne nekk na guerre bi nga xam si boppam métti woon na lool suñu nga xam ne ñoo daloon di dëkk si dëkkuwaay boobu nga xam ne moo ko fone si biir dëkkuwaay bu ngeen a xamee si Nigeria ñu ne kon nag lii si boppam taxoon na ba gannaaw nga xam ne ay ñaari million ñàkk nañ fa seen i bakkan loolu nekkoon na mu guerre bi nga xam ne métti woon na bu baax a baax si li nga xam ne moo nekk di aju pour nag ñoomi neen ñu war a mun a nekk di am seen i bopp moo tax naka muy wéree janvier saa yu mu demee bi am fukki fan ak juróom at bu nekk dañoo baaxoo di war a màggal ma juróom fukkeeli at gannaaw bi nga xam ne muy boobu xeex amoon na nag foofu na si diggante réew bi nga xam ne moo nekk Nigeria ak ñu nga xam ñoo amoon ak yooyu mbir nag amuloon kenn ku nga xam ne amoon na ndam bu ñu war a a nekk di wane si boobu diggante. kon askan mi li moo nekk lu leen amoon si xibaar yi di leen jaajëfal lu baax a baax si seetaan bi yéen ñi nga xam ne. yu ne ko doon déglu si Q radio muy 103.3 kàddu gu doon béy ko fii si biir tundi Kédéba avenue ba incha allahu rabi ëllëg ak jàmm di ajuma ñu indi leen yeneen xibaar ngeen àndoon si ak Birame S Diop jërë ngeen jëf.